إلا لا مع شيخ إبراهيم كمال لم تفعل باب المريدين ينقر يا بلا لا إله إلا الله مع شيخ إبراهيم كمال لم تفعل باب المريدين ينقر يا بلا لا إله إلا الله واو ليس genn laa ilaa ilaa laa moom Seex Ibrahima di Kamal Lamp Fall Babul Muridina genn góor yàlla say xibaaran jébbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bàmba moo moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon waa murid di aw baraw pexe marit ba am ngërëm bari murit te doo ture di tex tex jaaraama seexi Ibra Faal lamp di seexi Bamba Taal leeral nga réew mi yaa kamaal yàlla nga dolli Cheikh Ibra Faal Ahmadou Faal Sayer Njaay biran ja biiro qayaay faal baay naaru degen sey na bu soxna balla maam njaay ma farma yaasin daawul mi ci mbul yaakaari Seex Abdu Raxmaan Faal tillaat la sama waay jalaay jooy Seex Ibra Faal amaana waay weddi ko aw jàngam te ku ko sut fuuf jébbalu lii doy naa gëm Cheikh Ibra yaaka yow rekk fi feeñal xar baax boole nga neel yépp tey sollu ni daax Cheikh Ibrahima Fall léppam la yàlla wax ci alxuraanul kariimey loo jaxamul maandul ci Cheikh Ibra te ni isa jeey faati penda damel ma samba yaaya faal damel de calaw damel de cuufu njogeey maami sëriñ Seexuna faal sama wasilato maami bam ndigal faal lee ma nay xibaar ak ñi balam Seex lu deltu gannaaw jàngil muriitu dul pexe Seex Ibra yow ku la gëmul ba faatu yawmal xiyaam du tàbbi aljannaat ëllëg la mbir yëpp di leer ñu xam la waaju la gant xam ne yàlla buur la Seex Ibra Faal Seex Ibra yaa ka jara naw jaayante yaay ki tax mu xew boo dikkuloon ñun dun tala bay jaawal waa sow bi innaka cheikhi ibra faal baabu ridaaye yi nga ko faal nax juba yow la ni misaal mbaate nga doon sax nax juba ñun bu nu xamee sëriñ Tuuba yow yaa tax ndax nag bu lekkee ci olam faal cey laa tax ma sëriñ Seex moom la faal saabi géey boroom nelaw yeey ñakk reerul boroom ñakk reerul boroom allah ilaah ilallah ñakk reerul boroom ko wax yéen liggéey fanaane root ginaar di kuur kuréete moo ko xewal daaw lu ba ma wax mu dal ni naaw moo rëju rëja sant murid dundum pexe maxtaatu nga yari joor yanu ko jëmbate ka joore faal sëriñ ba ko ca buur Cheikh Ibra Faal topp cay fa mu ngi xadeef Adama Gueye mu gis fa Adama Gueye sànni mbiram dal di ca ngoy sànni mbiram dal di ca ngoy mu wan ko Bamba bar mu rëy sëriñ banaa ko foofa moo wax ko tegtal ya fa moom. sëriñ ba won ko la fa moom. moom xam gis na ko ko moom. mu dal di fa mbiram joxe. si ñoom xam naa ni loolu moom mënu woon a ñàkk la. ñàkk kay.